ni bunt bi tëjoo loolu rek di firnde lu bari ci fii ci centre de rééducation et de réadaptation ngir gone yi amee laago ci biir nag ay liggéeykat yu mer ba futtu lañ fay daal di nemmeeku. ñu nekk ay fukki fukku ñoom nag ñu ci joxoñ baaraama tuuma du kenn kudul njiitalu bile barab kookee yemul ci loolu nag daal di leen porter plainte depuis pratiquement deux mois kenn fayul nit ñi seen salaire tey jii nii mu organiser benn point de presse xamal ne nit ñi drapeau euh, muy sunu symbole réew nit ñi dañ ko caxat caxate tey jii nag ñun lu ñu ci gën a jaaxal ba mu demee ba au niveau de la police nee na drapeau boobu euh, mu waxoon bañ koy caxat caxate moom fekkeew ko ci bile barab waral wayjur yi wala sax ñi fay andi malaat daal di ba futtu ku war a def massage deux fois par semaine ñu ne la dañu grève nga ñëwaat semaine bi ñu ne la dañu grève encore kooku doomam kañ lay wér te am na ñeneen du dong ngir génne centre Talibou Dabo ci coono bi mu nekk faaw rek ñu daal di soppi lu bari loole nag faaw ñu daal di koy dooree ñu daal di fay jëlee yi leen jiit andi fa ñeneen. ñu ériger centre bi en établissement public de santé moom la ñuy xaar ci autorités yi parce que tant que ériger ñu fii ci centre bi amul benn directeur bu fiy ñëw mu am contre pouvoir. centre Talibou Dabo directeur bi tubaab yi nee nañu waa Monaco tant que mu ngi fi dootuñu fi dugali seen un franc bi euh, compte Ecobank. ba nga xam ne xale yi ñoo ko moomoon waa Ecobank bloqué nañ ko. directeur bi nag ñu daal di koy joxoñ baaraama tuuma moom nag ak ñenn ci ay liggéeykatam bëggoon nañ jokkoog moom wante nag mujj ñu ko jot ci am message la ñu daal di xamal nii dafa jàpp. ci waxtaan gi nag seetlu ngeen ni amul benn drapeau dem nañu kalaame fu mbaxane doone benn jàngeen def. centre Talibou Dabo nag moo ngi woy di jooy ay naqaram service yëpp daanaka dañoo daal di taxaw. ba yëf yi daal di soppeeku ña fay liggéey te duñu bàyyi takkum brassard